dans cette seconde partie du journal de la campagne électorale et nous commençons par ce communiqué du CNRA Suite au communiqué du CNRA rappelant les dispositions du Code électoral interdisant la diffusion de tout élément de campagne à partir du vendredi 24 février 2012 à minuit, euh, beaucoup d'organes audiovisuels, radio et télévision sont entrés en contact avec l'organe de régulation de l'audiovisuel sur la question des débats politiques le samedi 25 février 2012. Le CNRA rappelle que cette interdiction concerne tout élément relatif à la campagne électorale y compris les débats, interviews et revues de presse. Encore une fois, le CNRA en appelle à l'esprit de responsabilité de tout en chacun. Et nous démarrons cette seconde tranche avec le candidat Macky de la coalition Macky 2012. Sa journée a été rythmée par des meetings, marches et visites de proximité. Il s'est ainsi rendu à Thiès, à Bombay, Louga et Mehé. lónìí. bii ñu def jàpp naa ne dinañu dimbale dinañu dimbale si lépp luy politique yoo xam ne suñu gouvernement ëllëg dina ko def mu mu nekk lu yokk doomu aadama euh, ba ci njàngale diine ci école yi. ndax euh, suñu programme bii ñu tuddee yoonu yokkute li ci ëpp solo. mooy lépp luy xeex euh, injustice sociale maanaam société boo xam ne ñii dañuy ama am ba xamatuñ lu koy def di ko fooye ñii ñàkk ñàkk ñàkk ba bu ñu xëyee du ñu lekk du naan te suñu feebaree ñemuñ sax dem ko docteur ndax xam nañ la leen fay xaar mbir yooyu nag ci ay doomu Sénégal lañu bëgg wàññi dañu bëgg a dindi naam àdduna duñ ne rek ñëpp a yem ndax ay baraamu loxo sax yemuñu waaye nag équité dafa am solo. Bambey je pense que chef de village yi li ñu gën a soxla moo ñu assurer leen sécurité de vol de bétail dootul am ci kaw ñi. chef de village li ñu gën a soxla mooy béykat yi ñu jàppale leen si jiw ju baax engrais bu baax te bu ñu béyee ñu mën leen defal traite bu baax ku béy mën a jëriñu sa njaboot mën a jëriñu béykat yi li ñu soxla mooy wérgu yaram ñu assuré leen mbirum paj mi bu ñu feebaree ak seen njaboot li ñu soxla moo ñu wàññi njëgu ceeb njëgu suukar ak njëgu dëwlin ñëpp yem si loolu mooy politique de solidarité nationale waaye di xiiroo di boddi di daggate loolu war na jëm génn ci Sénégal de Thiès sera consolidée et renforcée. Thiès en tant que deuxième ville du Sénégal un l'industrie ferroviaire à Thiès Dundalat Raibi. bi nous Dundalat l'industrie extractive les phosphates de Thiès de Aloukagne les phosphates de Taïba les ICS Donnons-nous l'activité automobile ici à Thiès mais Thiès c'est aussi un pôle universitaire un pôle de compétences Nous renforcer l'académie de Thiès autour de l'école polytechnique de Thiès de l'ENSA l'école nationale supérieure Agronomie, et d'autres génies tels que l'institut des sciences de la terre qui devrait rejoindre cette académie de Thiès Thiès donc d'un Yoko ay lycée à collège Yoko fi également à terme une université de métiers dans le domaine de l'industrie du tourisme mais également des services donc population de Thiès le prolongement de l'autoroute de Thiès sera une de mes priorités dans le cadre du programme décennal d'infrastructure cette autoroute se poursuivra dans la dizaine d'années jusque vers et Touba. mais urgence il y a un dans dans la ville de Thiès en tant que deuxième ville du Sénégal amul courant bi manque dans les quartiers périphériques Chertian Gadio de la coalition Gadio Président a fait un tour à Ziganchor, Kaolak, Mehé et Mbake. Il s'est adressé à ses militants à travers des meetings et également en caravane. J'avais une émotion particulière en signant ce document parce que j'ai l'impression, avec l'aide de Dieu, que la deuxième fois que je vous rencontrerai, Inch'Allah, c'est après avoir apposé ma signature sur l'accord de paix définitif en Casamance. Nous sommes prêts à négocier sans condition, sans aucun préalable. Un accord définitif, un accord de paix euh, définitif pour la Casamance, parce que le Sénégal a besoin de se réconcilier d'abord ici en Casamance. Et ensuite, j'ai annoncé tout ce que j'allais faire, un programme d'urgence de reconstruction de la Casamance, un déminage humanitaire immédiat, et j'ai dit que les jeunes qui sont engagés dans le maquis auront une offre de réinsertion, de mobilisation et réinsertion. Les leaders seront réhabilités et réinsérés dans le pays. Une amnistie générale sera décrétée. Et comme je l'ai dit, je vais instaurer un dialogue national intercasemancé et inter-sénégalais à travers une commission vérité, justice et réconciliation. quelle que la situation ak grand combat bi ñuy mëne pour obtenir Ablaye Wade mu génne candidature am importance combat boobu am na beneen combat ci biir senegal pour tout le combat pour la paix en Casamance. limay wax ni sama xol la ko ko sama xel xam wax parce que la ci man def mu cadre politicien politiciens depuis ati at di que dik ki te mandam mu ne demul Abdoulaye Wade na jours 100 jours xam ngeen jours la toll jours reconstruire Casamance, déminer Casamance, désenclaver Casamance, réinsérer et démobiliser les jeunes qui sont dans le maquis. li tax ma problème de Casamance problème du sénégalais yëpp la mais ba ma Casamance Je veux leen nag am na beneen dëkk boo xam ne aw ma une chance def fa longue marche citoyenne te yàlla may ma fa ay je ay xarit muy Kaolack lan le message bi am pour Kaolack ba ñuy xale ñun. boy jégué Kaolack 5 km la wax 5 km nga dégg riiru dëkk bi bruit Kaolack liñ doon wax bruit Kaolack mo naan la ville bo xamné mo gënon vibrante Sénégal commerce bi seko yi lépp di marché Kaolack buñ la né da ngay dem mission Kaolack da ngay contane ndax jamm jang fay fekk xamné domo doomu Kaolack lepp nek fi commerce bi agriculture bi gerte gi lépp lépp Kaolack la woon Sénégal gépp di tiitaroo Kaolack xool leen léegi ni ko gaa yi def moo tax ñun dañoo jàpp ne bés bu ñu jotee ci réew mi dafa am gox yoo xam ne dañ leen di tabax mais dafa am gox yoo xam ne dañ leen di dekkilaat Kaolack dañ koy dekkilaat. ci tey d'accord ñu ci bu la yàlla mayee ay at yu doy ba nga jege juróom ñeent fukki at li la war mooy bañ a nguur wala fi ñu ne nguur kenn du ko ñedd Le candidat Chertidiane Gadio, qui était donc à Ziguinchor, Kaolac, Gossas et Mbake. Après l'intérieur euh, du pays, le candidat Abdoulaye du PDS et de la coalition FAL 2012 se concentre désormais sur Dakar et sa banlieue. Hier, il a alterné marche et meeting à Pékin et Guédiawaye. Je vous rajo Banjul kon yéex nañu ceekal dégg naa seen woy wi mais ndam li jël naa ko ba pare ah, yaakaar naa ni waa Sénégal bu ñu gisee tey ci télévision bi danañu xam ni borom dëkk bi ñëw na këram.

Idrissa Seck de la coalition IDI 4e président a rencontré le chef de mission de la CEDEAO et de l'Union africaine, le président Olusegun Obasanjo. Il a également pris part au rassemblement de la place de l'indépendance. Bien, donc effectivement de rencontrer le président Obasanjo et sa délégation qui sont présents au Sénégal dans le cadre d'une mission conjointe Union africaine et CDAO, mission de paix au Sénégal, mission de prévention de conflits et de crises, mission d'observation aussi des élections. Nous avons naturellement largement échangé sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal et euh, nous fondons beaucoup d'espoir dans la réussite euh, de cette mission et de l'ensemble euh, des missions qui visent à garantir la stabilité, la sécurité et la paix dans notre pays, qui a, comme tout le monde le sait, une réputation planétaire en matière de démocratie et la préservation de cette image démocratique du Sénégal nous est tout à fait précieuse à tous. acteurs politiques du, du Assalamualaikum mbokku Senegal. ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen gërëmaat ci takkute bi ma gis fii ak dogu gi ma fi gis pour aar sartu senegal fexe ba ñëpp di sàmmonte ak yoon xam naa ne ay responsable yu bari ak ay militan yu bari yu nekk ci suñu coalition nekk Ziguinchor nekk Fuuta nekk Tamba nekk Kaolack nekk Mbacké Diourbel ak dëkk yi ci biir Sénégal yépp bu ñu sañoon saa yu ñu xëyee gis ma ma ñëw ci ñoom waxtaan ak ñoom wante li fii ci Ndakaaru nañu xam ni waa Sénégal yëpp laa koy defal senegal yi nekk ci biir dëkk bi ak sénégalais yi nekk bitim réew ndax xeex bi yëpp dafa am lu ci jiitu mooy ñu bañ a bàyyi njiitu réew mi lu ko neex def di jalgati yoon di jalgati constitution di doxal doole bëgg bu fi jógee jox réew mi doomam xeex boobu nag ñépp xam nañu ma ci fii ci Sénégal ak ci àddina bi bu ñu ko dee xeex ba waa bitim réew muy Union africaine di CEDEAO jël ay kilifa yu mag yónnee leen fii ci biir Sénégal pour ñu seet pexe bu ñuy aare démocratie Sénégal loolu duñ ko fi mën a bàyyi di dugg ci biir réew mi di wër nañu xam ne élection yi waajal nañ ko ni ñu ko war a waajale nañu xam ne lépp lu aju ci programme tëral nañu ko moo xam lu jëm ci wàllu delloosi si jàmm ji ci Casamance moo xam lu jëm ci wàllu dund gu cher gi moo xam lu jëm ci wàllu mbay mi sàmm gi ak napp gi lu ci ne tëral nañ ci ay xalaat ak lu jox liggéey ndawi Sénégal wante nag dafa am loolu lu ko jiitu ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox ci loolu lañuy taxaw xam nañu ne yëg nañu takkute sénégalais yi ak fu ñu mën di nekk ci Sénégal moo xam ca Fuuta la wala Casamance wante nañu xam ni liggéey boobu nañ ñu may ñu eggale ko ba keroog yàlla di ñu ci defal ndam puisque loolu mooy aar Sénégal loolu mooy indi développement senegal maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam Nous rendons à présent dans les îles du Saloum où se trouvait le candidat Omar Hassimoudia du parti Imanis. et la présidé en meeting à Pétanti. Nous naviguons sur le fleuve Saloum, quelque part entre Missira et Betenti. C'est à bord de pirogues comme celle-là que des milliers de jeunes, des milliers de nos compatriotes ont quitté le Sénégal pour chercher leur dignité en Espagne ou ailleurs. Ils sont pour la plupart restés dans l'océan. 1000, 2000, 3000. Personne ne saura le nombre de jeunes que l'océan a engloutis. Ces jeunes sont partis à la recherche de leur dignité. Ils sont partis tout simplement pour fuir la pauvreté, fuir la misère, chercher du travail, chercher ailleurs ce que leur pays n'a pu, n'a su leur offrir. Bien, ces milliers de jeunes qui sont morts dans l'océan nous ne devons pas les oublier. Ces exilés du travail, comme je les appelle, nous avons le devoir de défendre leur mémoire. Mais défendre leur mémoire, c'est empêcher que cela ne se reproduise pour nos fils, pour nos petits-fils, pour les générations futures. Nous avons donc le devoir de créer les conditions pour retenir les fils de ce pays dans ce pays. Nous avons le devoir de leur offrir du travail, nous avons le devoir de leur extirper de la misère. Nous avons le devoir de les laisser, vivre dans des conditions de dignité. Voilà pourquoi la candidature de Moudia, c'est la candidature de l'espoir. C'est la candidature d'un Sénégal nouveau. C'est la candidature des jeunes qui marchent vers leur avenir, mais qui marchent à l'intérieur du Sénégal vers leur avenir. C'est la candidature non plus d'un Sénégal nouveau, mais d'un Sénégal qui avance vers son destin, un destin plus radieux, un destin de paix, un destin de prospérité. mbokki Bettenty yi jeunesse maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen wax ni suma ma ñëwee fii ci Bettenty sama xel day dem ci xale yi nga xame ni dañu jóge fii nekk ay téeméeri téeméeri dugg ci gaal yi dem Espagne ñu bëree ci ñoom perte seen bakkan ci ndox mi. xale yooyu waruñu ngeen fàtte ndax coono yi am ci réew mi ñàkk gi liggéey bi am ci réew mi jafe-jafe yi am ci réew mi moo tax xale yooyu dugg ci gaal gi bay dee ci géej gi naan barsa mbaar barsàq bay des barsàq moo tax bu ñu ñëwee ci ci Bettenty dañu leen di xalaat yéen nag yéen wax yéen jeunesse de Bettenty que état bi nguuru Abdoulaye Wade defu fi dara yéen a ko wax sànq ñu dégg ko parti socialiste ne ngeen def na fi 40 ans defuk dara betenti Abdoulaye Wade def na 12 ans defuk dara betenti ndax bi ma ñëwee betenti ma ne école betenti bi fi nekk yéen di am ngeen dara ngeen ne école bi yéen yéen ko tabax ak seen bokk. mbani seen dispensaire u bi ngeen ni ma dispensaire bi yéen ak projet italien bi yéen a ko tabax te dispensaire bi amul infirmier amul docteur amul garab kon yéen 40 pour cent yi Abdoulaye di Wade di wax ci éducation bi yéen waa Bettenty gisu ngeen ko gisu ngeen ko mais dëkk bu day ni Bettenty am plus de 10 000 personnes yu fii dëkk am une importance économique capitale di exporter crevettes yi huîtres yi gu di jogé fi di dem fële wax deug yàlla Bettenty warona nek une commune on aurait dû émerger on aurait dû ériger Bettenty en commune parce que mérité ngeen ko ma leen di wax nak yéen jeunes yi yéen màggu Bettenty yéen notable Bettenty so ngeen bëggee mbir mi changer té yéen da ngeen ni changement ngeen bëgg il faut que le 26 février ngeen jóg ñep au taxaw temb dem ci jamm ak salam voté Omar Khassimou Dia ndax mu nekk le quatrième président de la République du Sénégal. Le candidat Doudou de l'Union pour la République UPR yamon a fait visite de proximité et meeting. C'était à Mbao, Rufisque et Kaulak. salaamaleykum jigéenu Sénégal jigéenu Sine Saloum nuyu naa leen fan yii dama dem Casamance mu am benn paa bu ma topp dëkk bu ma dem rek mu dem fa fu ma ko jiit mu fekk ma fa mu daldi dem Tambacounda fexe ba. fuma wara jaar mu ne daf fay meeting camion yi taxaw fa may wut essence mu ne ah góor gi day fexe na ba essence amatu fi mu ne waw man ndooy lan la def sa way way ba fuma taxaw rek mu taxaw fa comme que ñewon na Kaolack si guddi gi góor ñu bare bare bare fi mu topuma mom ba Tambacounda ma def ko fen de corps nak def ko fen de corps delu ci wal tay ne jigenu Kaolack mangok yen jigenu senegal mangok yen ngok fi fii si Sine Saloum lay wax ak jigenu senegal jigenu Ngor jigenu wakam sin dakaru jigenu charoy jigenu yof jigéenu barñi jigéenu Tëngéej jigéen ñi nekk Casamance Joola Soose Bambara jigéenu Tambacounda jigéenu Bakel Anxubaara Maajam jigéenu Saraxule yi jigéenu Fuuta yi jigéen ñu baax ñooñu nekk ay alpulaar mën a teeru ñëpp mbaax jigéenu Bawol jigéenu Siin Saalum jigéenu Kajoor jigéenu Sénégal yépp lay waxal fii ci Salum Saloum eh. alors tey si suba bi ma ñëwee Tëngéej dama bëgg ngeen xool li fa xew télévision maa ngi leen won mbokk yi gis ngeen xale bu bu taxaw si télévision ne dama bëgg a jàng ñetti weer ngi nii jànguma président bi war a dem bàyyi ñoox réew mi tudd Abdoulaye Wade daal di jël benn panneau bu rëy def ko si buntu autoroute ne weddi gis waaw weddi gis man gis naa ñaari tali yu mu defar gis naa benn autoroute bu mu defar wande gis na xale buy joy bëgg a sa mënul jang gis na xale yi joy bëgg liggéey mënul liggéey man dama dawal sama auto samay chauffeur bu nu dawalee ba sonna ma jël wala bi dawalal len mu jël ay avion hélicoptère tim réew mi dem kenn du wuti nit di romb nit nan nit ñi nga fi nekkal nit ñi nga bëgg ñu am jàmm nga jël sa hélicoptère tiim leen ak sa avion wàcc baari tale yi def ñaari tale ñetti autoroute xamuloo si mbedd mi kuy dee xiif xamuloo kii këram di lakk xamuloo xale bi bëgg a jànge si jàngiwul nga naan góor gi doyle nañu wala góor gi doyle nañu man xaw ma lan si bëgg a wax mais man lenn rek laa wax waxuma leneen xale yii bu nu bëggee jàng sa jànginu senegal amatul xale yii xale yi bu nu buggee liggéey sa liggéey yu Sénégal amatul jigéen ñi bu nu buggee seeni doom liggéey liggéey ñu jigéen ñi dinañ sonn jigéenu Sénégal am ngeen de grosses responsabilités tey si Sine Saloum lay wax jigéenu Sénégal. Nous terminons cette seconde tranche avec le candidat Djibril du parti Tahaou Askanui. Il était dans le centre-ville et à la Médina. tey nag jóge nañu place de l'indépendance ñu gis yëf yi ni mu demee yéen ñëpp ngeen xam ne dëgg ñu ngi koy bëgg a ni sànni ko di Sénégal ndax bi ñu jógee foofu gis ngeen xale yi ni ñu dare ñu ñëw nag nekk au cœur de Médina à droite et à gauche la Gueule Tapée mu ñu am signification bu rëy pour man ñu xool ne marché bi la romb marché bi ñan ñoo fi nekk ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi daan seen doole am jom am teraanga am sutura nekk seen biir kër yi ak seen difficulté yi ak li nga xam ne ñëpp xam nañ ko mooy njëg yu cher yi fii di Sénégal ndax soo gisee lii rek lii soo ko gisee rek xam ne njëg yi. Sénégal war nañ ko daaneel war nañu daaneel ceeb bi may romb am na ñoo xam ne ñu ngi yuux di ma wax ceeb bi ñii ñu may wax tamaate bi ñii ñu may wax diwlin ji ñii ñu may wax suukar si ñii ñu ngi may wax essence bi ak gaz bi ñii ñu may wax transport bi ma xam ne ëllëg loolu yëpp incha allah suñu jëlee réew mi ñu teg ko tey xale yoo xam ne ak mag yoo xam ne seen loxo set nañu bëgg nañu liggéey. bëgg nañ jël réew mi yóbbu foo ko xam ne kenn masu ko fa yóbbu jour buñ ko jëfee incha allah seen béppët yooyu yëpp ngeen gis dinañ ko faj. ma xam ne ma xam ne ma xam ne Sénégal dañu sonn Sénégal dañu sonn te gis ngeen yaakaar fu ñu romb rek fu ñu romb rek ñu ne ñu doy na. doy na bi nag ñëpp xam nañ lu tax ñuy wax doy na léegi doy na doy na jël leen ñi nga xam ne ëllëg am nañu ay loxo yu set bëgg nañu bëgg nañu ëllëg defar Sénégal ñooñu jël Sénégal teg ko seen loxo ñu liggéeyal xale yi liggéeyal jigéen ñi liggéeyal mag yi liggéeyal sàmmkat yi liggéeyal béykat yi liggéeyal nappkat yi ndax Sénégal dafa war a changer. Sénégal dafa war a changer changement bi nag mu ngi seen loxo changement wu Sénégal mu ngi seen loxo na ngeen ko xam bu leen ko wéccee bu leen ko tasaare jël leen ko ëllëg ngeen dugal ko ci urne bi jox ko Djibril Ngom mu change Sénégal. ndax dama ne leen. dañu toog lu yàgg di seetaan di yàgg di xalaat di xool li nga xam ne moo dëng Sénégal di ko gëstu di ko liggéey ba tey def ko ci programme boo xam ne ëllëg suñ ko tegee problème jaakaar naan dootu am Sénégal su dee Sénégal ànd ñoo ñun ànd ak xale yi nga xam ne bëgg nañu liggéey ñu liggéey Sénégal réaliser les objectifs ndax objectif bi benn la mooy Sénégalais yi soo leen di xool.

gis gis nañ ni mu nekk seen euh, ci tali bi ku nekk di daw nga xam ne Sénégal loolu moo tax ma ne jël leen Sénégal ëllëg jox ko koo xam ne yërëmul poche am ne yërëm na seen poche koo xam ne dina def ay économie def ko di fond boo xam ne pour xale yi la pour jigéen ñi la.

Voilà, c'est la fin de la seconde partie de ce journal de la campagne électorale. Merci de votre aimable attention. Au revoir.